bugguma sa dara. non non non non non non buñ ma ñawal dara soxlawuma daraam li ma la wax nan ko def ci sa bopp gis nga lii nii ah dina répercuter ci sa kaw man maa la ko wax lii dina la coûter cher da nga defee ne day yomb nii def li nga def ba pare ñëw baal ma àq nii. non non non non ma nga nu leen ci ma nga nu leen ci salaamaaleykum yow xanaa dem waxoon dama kër dama ci ah. bëgg dara man kay wax naa moom nag awa ah, yaay guddi gi yëpp dama ko doon naxtaan waaye xam nga nag sa waay wax naa la nga def li nga li nga war a def wax naa la ko nee naa la demal nga baalu ko aat wayu fan la jégalu jégalu naa ko fii kay fi ñu jàkkaarloo wene yow démb aayow ma dama koy fekk sa néeg di ko jégalu ah awa ah, yaay sama néeg amoo fa sens interdit sama néeg sa néeg la di yaay aawa buuru këram man maay sa rakk maa topp sa ginnaaw lenn rek laay bañ nag mm. ay yéentu ak ay déglu ci buntu bugguma yooyu mais sama néeg boo ñëwee fëgg ma ubbil la bu la neexee sa nga toog faax sama kaw laal nga waxtaan ak suñu góor. Hmm. dal def loolu waaye li ma la wax defuloo ko. xam lu ma jaaxal xam lu ma jaaxal loolu moo tax nga jël problème bi ma naka sël yow da nga maa sëf problème bi comme si que jot doo ci dara daal dan merewu la jéppiwu la te yow man man yow laa doon géral. yow eh. dinaa la bu ñëwoon sa sa wujju la du sama wujju man yow laa doon géral lan moo tax yow problème bi yan woo ko nga nga defee ni man kese la. man bi ngay daagasante fii ak jongo ma newoon naa la bàyyi li ngay def. ñaata yoon laa la retenir mais nga bañ yaa def erreur nag faama nag dangay assumer nag. dama nan laa koy jéggaloo nee yow faaw ma wéet moom dan nitu privé la du nitu public bu doon maag moom kese xam naa nu may sama bopp gana léegi tey ko aay maag yow. léegi man may naa la sama ay. Hmm? pour nga dem nga jéggalu ko. merci xanaa loolu neex na. boo bëggee sax wax ma loo bëgg togg tey ma demal la marché dugg la lépp li nga soxla ma àndal ko nga dugg ci waañ bi rëkk lu neex nga taajal ko ko su ko nga baalu ko ak su góor la xam nga ma jaaxal ko ñu woon kii femme man la doon géeral dina la mere mere mais man kese lañ mere loolu mooy sama problème lan nga def ba ma man kese. Ah, ni ma di ko réccu yow yaa def. te xam naa def hmm? wax naa la ba sonn bàyyil mu sedd bàyyi di ay pensées négatives femme ba pare dama xam nga ni moom tamit amul problème. dinaa ko fa jël comme maa arrêté waaye yàlla bu mu rejeté waat ay bi xam naa dan day day dem ba buudu buudoo fuu su lay bëgga a tooñ su la bëgg fay boo ko tooñee da lay tooñal day dem ba buudoo fuu déedéet hmm? déedéet dina la jéggal dina la jéggal dégg bi man ma jàpp boor bi d'accord bu ko defee dina la baal ah. lu dëgg waaw ah, kay kon na nga daan démarché bi loo bëgg loo bëgg togg sax yow tey xam nga xaw xoolal suwaam nga togg man dama stressé bi nga là? Je ne la pas si je ngi là. Je Tu sais pas ah je suis là bay ne sais pas si je suis là? Je ne sama pas ok sais pas si je suis tu Je lan mooy suis là? lan ne sama pas si je da nga Je ne dimanche wala yow légui amato jour chaque jour da ngay gën di taxawal. mais après dimanche mom moy lan. Hmm. da nga xam man nak lan lay lijjanti xam nga koy sa. mais loolu lijjantoo mako ko Waly da ko war a nak nag. Waly Diouf loolu du ko lijjanti. mais pourquoi. parce que tey la dimanche nga wara a toog ci kër gi. Waly Diouf li la may mi bëgg a ëpp. Eh. waaw ndax yow amo personnalité amo classe. Eh. xool na ba xool yow kenn du la may lépp. ni man ngay wax yow lay waxal Waly Diouf yow lay waxal yow sa taxawal gi dafa ëpp. bo boo foogoon ñak fu la aw man daraay ñàkk fula. yow lay waxal Waly Diouf ndax yow li la may dafa ëpp taxawaalukat ah. nga yow ya ñak personnalité yow amo personality personnalité wari juuf waaye gis nga sa yoy nga nek day dak mimi nekkal nit mimi nekkal nit mimi bul fatani yow man sa jëkkër laa amuloo ben yoon droit taxaw di wax ak man sa baat di jóg ci kaw amuloo droit mom et puis may doxi sama soxla yow ya may wax kañ lay genn kañ la du genn so ni yow da ngay taxaw suma digg bop yi da ngay nax sa bop man je ne suis pas. waaye yow taxawal gu day dak gis nga mimi ndax man taxawal duma ko nang tay la lay wax yow yaay kan mimi. Hmm gis nga yow lii lii nga teg sa bopp bi xam nga li muy jar mimi yow da nga mën a amal sa bopp 100 francs yow mën nga ko. 100 francs sant yàlla mënoo koo liggéey mimi fii ngay toog ni faax tiim sa bool ma lay sol ba nga ne xuleet ni dañu toog fi ma toog di ma lijjanti léegi loolu moo loolu moo tax a jóg dinaa la wax benn yëf que ça soit la première et la dernière fois man may génn yow ngay lijjanti. waaw da ngaa neex nag sama jëkkër nga moo tax nga war a dëkkee taxawaal wali juuf amna lo xam duma ko nangu yow bo beugé manam ko sax man duma ko nangu da ngay tok ci kër gi amna yo xamantene man duma ko accepté lan la. yow sa taxawal bi dafa upp sax. yow li yow la ko jël. giñ ci yalla ni bo xamone li hmm, yow. lan moma yow lan moma yow dara yotuma ah, taxawal kat bi nga doon yow amo sa pudeur. taxawal nek ci deug ma nga ngaa foogoon nga ko ci kër aji ngay dem di ñew fi dem di ñew mankam bi perte man bi waaye Waly Diouf yow xamoon man jéeg laa sama biir kër gis nga kii li ma ko may dafa ëpp day taxawaalu ci kër aji la jam waaye man dofu ma nag te gis nga nii dalal mimi nena naa la dalal nii ngay fajee de nit du ko fajee ci diggante jëkkër ak jabar soo amee lu lay naqari bàyyil ba guddi ngeen toog waxtaan ko en tant que jëkkër ak jabar mimi gur jam la bëgg ci biir këram su ko am gis nga wali Diouf mi boo ko mayut jàmm li ngay bañ dina ko def ci aji la jëm xam nga li ma lay wax bu baax. gis nga ma may def xam naa ko sax duma ci boole wax. waaye yow waa man sama kër gi tey tas na de waa man nan lay def ko kër gi réglé lépp ak waali lépp ak waali waalee ba gëmewu ko waaye dinaa ci jug bu ma ne lii dinaa jug ci diggante aje kii ndax dina tas kër gi baax na xaaral ma ñoom dem na Ndiaye la. waaw mais naka moom. ça va bien. yaa sant chéri. ça va ça va bien. yegg nga ma de. duma la bàyyi mukk. mukk. alors kii mooy sama tàndarma Dubaay. tàndarma Dubaay. tàndarma Dubaay. kii mooy vidéo. waaw. chéri ça va. ça va bien. loolu kay moom du benn problème. tey yow yaay sama spécial invité. jeex na ah Izo. ay loolu. jeex na yegg si leen. ça va Ça va bien. Merci Diam. Madame. Et ta journée, ça a été Oui, Alhamdulillah. Pas trop fatigué Non, non. Elle va Non, non, non, c'est va Ah, c'est bon. bon. Ça va Ça va bien. xam ma la bëggoon a wax. Ah tey sama ay bi dama ko may faama. comment ça. ah dama ko ko may comme ça mu mën a def ay feebam mu jégalu béem nga baal ko yow tamit. waaw mais ay bi da koy jël waxtaan ci yéen noonu maye ko noonu sans ngeen consulter ma man ci ay bi laa bokk mais bu ngeen di jël décision ci ay bi yow au moins yow yaa aaya ngay maye yow sa bopp jëla sa téléphone nga woo ma ma wax ci sama xalaat. mais nga jël ko comme ça. Ah, man je pensais bien faire Mota. tas. d'accord de problème. yeah, yeah, yeah, ce que je film la mis di wax ak mom ni ko jox sama ay mako deg mu nan ko dag ma ci warona consulter mu contane ci ay bin ko def contane ci. yow dama la soxla won sax fof nga ñew dan ya tax sax mu rombu ma tay nuyoo ma. dan nuyu la ah, may nuyoo Fama yow li nga nekk ya ko tay Fama toujours nga toroxal ko ba toroxalen yow ku fi ñew yobula gan gu am yóbbaale la. bu yàggee nag yow la ñuy wax et yow yow looy xeex ak xuloo yow li nga doon bañ ñëw. am nga ku topp sa ginnaaw léegi keneen ku ñëw nara topp ci ginnaaw ko loolu ci. moom laa doon xeexal nag Miss laa doon xeexal voilà la question Miss moo xamul parce que tellement li ma doon gér rek moom la ndax te kii xaw ma nu mu tudd jonga ñaaw xaw ma ma jonga ma su nekkoon wujjam man du sama wujjati. Miss nga tey di sëy sëy bi yow ngay ràppi ràppi fu ne. Ah, man li ma jaaxal ci yow mooy. Mm. yow danga juddu ci ngor ak dignité war a am fulla ak fayda ak jom amoo ci dara. fulla ak fayda aw ma ko nag. lu tax moo ma jaaxal nag aw ko lu ma dal looloo ma ko teg léegi waxal ak dan dan mer na de. mun nagu maa wax ak moom léegi de dan mii. Mm. foog ma bàyyi ko ba mu teey dan mii ku wax moom man xam naa ne fi mu ne nii li ma décidé. Mm. mooy ma bàyyi la ak sa sëy. nga des fekk sa jëkkër ak wujj yu ñëw man ma dem ëpp naa def noonu laay def ndax yow kenn mënu laa coacher ëpp naa jéem naa la coacher ba sonn mais mënu hmm. maa ngi dem xool fan bàyyi ma waaye yow togg boo xam ne balaa ngay togg yore sa téléphone looy togg togg yorul sëy sëy la te tey jox nañ ma ay bi su ma wéeteeg moom loolu sëy la man moom ñu tëj bunt caabi féete ñu ginnaaw loolu moom sëy la moom dana wàcc nag dan dana wàcc de dana wàcc ba zéro naa la ba sonn mais yow impossible bàyyi naa ko. waaw hmm. ak kooku dafa bëri problème quoi. ah man damay laajte rek de. non garaawul. mais booy kii xale bu ndaw la. judduwul. Hmm. bon d' accord woo mère kon. ah ko appel vidéo bi ah. xam rek mère soo ko woowee fii la lay nekk naan julli nga woor nga def nga liggéey ak yooyu noonu te yëpp def naa ko. mais juste xam da lay contrôler rek. ah gannaaw léegi mu ngi wóor. ah non mais xam naa moom mi ngi wóor. à na ko rek gis ci kër gi nag. ah man ko dama jaar keroog mu indi fi kenn tey mu indi na leer ma la dénk bi. du nettali mais li nga nekkee yow foog ma nettali ko. grand man la laa nekkee ñëw ndogu si. non mais di lu mag dal nekk ci tànti da koy wax mère rek non mais booy yow. déedéet man li ma yombal rek mooy li mu indiqué après tey mu indi kii loolu est-ce que yoon na. wax naa ko ok bëgg ay xaalis ak yooyu. moom jéem a moom ay tekki la tànn loolu la. ah non loolu bañ a woo sax. ah daf ma la dénkoon dara. en plus tamit gis naa ni yow yaay sama best followers. Mm. number one number one mm-hmm. léegi loolu yëpp tey dina leer yaa moom li ñuy def mm. ma plat c'est arrivé là-bas ah bien sûr là on a pomme de terre mm-hmm. fromage gratin ghetto. togg on va xamee <laughs> c'est facile à deviner lii moo tax nga ma xam nga nu ñuy

ak Maggi arôme sa waañ ngi gën a yànja gën a melax ak yow tamit Maggi arôme am na ingrédients yi nga sopp yépp cafka gi xeet gu neex gi ak couleur dorée bii ci arôme Maggi ak soble piment vert ak laaj seeni togg gën a tina saf ak bii xeetu arôme bu riche Maggi arôme mooy seen àndandoo bu gën a wóor ci safal seeni ceeb ak soos Maggi arôme roy du nur ak piir ak Maggi arôme toggal soppi sa dundu Da da da da da da da da da da da